Ah! waxtaan bi kum faxeel ba jubóog sénégalais yi di jéggale tay baxale feeg yaa ngi ci yàlla lay sàmm ay kaddu la yu bàyyeekoo ci xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour jëmale ko ci njiit réew Macky Sall l'évidence yéen a kaay moo ñu ko xamal ca laas yéen a kaay Serigne Mbaye Sy Mansour yokkaat na ci nee na njiit réew Macky Sall faxal ba bul wutal say bopp xay noon réew mi nag coow li bari na waaye bul fàtte mukk ne ku jiitu bukki faaw xaj baw la kaddu yi nag mi ko bi njiit réew Macky Sall demee niki démb ca Tiwaawoon jaala ji xalifa bi ginnaaw bu rakkam bu jigéen génne àdduna presque àdduna bi yëpp nag ñi ngi waajal màggalug Tuubaa Mbàkke dëkk bu sell ba ba tax l'observateur ne jëwriñ ji ñuy wax Abdou Yaya Kane moom attaqué nañu ko ca Tuubaa Mbàkke ka attaqué ay digéem ba mujj koo def du kenn ku may Cheikh Mbàkke Baara Dolli aa yaaw seetal ci wate yi passé fa digoon ay soxna yu nekk ca xayra de ay financement sëñ bi mujj na koo def l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom Walfadjri a kaay a dàq ñu ne xiin wa jiqi na taw rek ci des presque dàq na lem ndax Ousmane Tanor Dieng ma ngay tëral ay pexem yoonam ngir kaj ji lem aa yaw seetal wàllu njaayam carte PS yi génne nañu ci xalifa ak ñamu àndal bokkuñ ci naka noonu wàllu renouvellement yi duñ ci bokk ah kon kay ñuy dàq nañ leen di le soleil yi ne kaay ne hee daf leen dànk de affaire bu du yombee noonu ndax xalifa sàll Bamba Fall Barthélemy Diaz Aïssata Tall Sall ak ñeneen ñu ni mel nee nañu ñoo bañ ba def na yéey yàbbi ci coow li wax si turu Senghor si du quotidien mel ni koy tontu na ko gis nga yow ak ñoom Khalifa Sall diisuma leen baaw gisuma luy tere ba gaay leen dàq kajji leen ndax fi mu nii secrétaire généraux yu parti bi ñoom ñëpp d'accord nañ ci ñu kajji leen te ñooñu rek ñoo am sañ-sañu football lañ ca biti l'évidence yéen na ëllëgu ñoom Khalifa kay ci PS mu ngi ci taabalu bureau politique bi lu ñu wax rek loolu mooy am la am ci parti am njiit ak Augustin Tine particulièrement fori de xanaa mennam Siré Dia moo fay yaakaaru Macky l'évidence yéen a moo ñu ko xamal li ñu xamal Macky ñoom waa LD mooy na leen gën a jox seen cër bañ di leen cof mi ci wal fajiri yéen zoom yéen moom di ñu xamal na njiital port autonome bu Dakar bu bees tàq bu fal teggi na neenal na dogal yi mujj ya fa Cheikh Kanté jëloon lu ëpp juróom fukki doomu adama yam fa jël liggéeykat ci anam goo xam ne jàpp commission xool mboolem lu ñu fa xaatim lu nekkul yoon ñu jëlee ko fa zoom yéen a kaay na ko ma yokkal la ci gis nga liggéeykat yam jël moom Cheikh Kanté presque neexal ay politicien la woon ndax Moustapha Niass am na fa quota maanaam am na fa ay quota li am ci wàllu njàng mi ay njàngale mi jafe-jafe bi ci nekk dara andiwut ko lu may wàllu rappel yi nguur gi yoral jàngalekat yi bañ leen koo fay ak indemnité ndàmpaay yi mu a joxe enquête yéen a kaay moo xëy amal tey ñuy fa ñuy faxantoo ba tax ndonga saar bu kisems ne bor yi ñu nguur gi yoral mënoon nañu koo fay ndax xaalis bi mu jël naan fu koy dugal yooyu yaay ci ay train express ak la mën ta wax mënoon nañoo fay Mamadou Diagne nekk ca jëwriñ juñ dénk wàllu njàng ma njàngale mi ne li ma bëgg ngeen xam yéen jàngalekat yi mooy budget bi réewum Sénégal lépp duñ ko yemale ci yéen xalaa yéen rek nekk ci réew mi réewum Sénégal nag seen aéroport ñoom ñaar ñu commencé ndoor waaye ñu yor wàllu avion yi ci àdduna bi nañ ko ñoo bañ loolu du fi amee ndax des ngeen a pare yéen a koy tontu na ko ñoom sax dafa am lu leen doy am na fukki dawalkati avion ak juróom yu bokkoon si ñoom tekki nañ seen doom ba tànk la sàkk mooy contrat gannaaw bu ñu amalee tàggatu ci réewum France France googu nag lépp lu ñu ci wàllu songu terroriste yi lu ji njaaga ñooy njaag ñoo ko nar a teg réewum ñoo gàntal seen pexe ban pexe lañ mën a andi ba combat Modou Lo Lac de Guiers 2 ñu bëree ko ak combat Eumeu Sène ngir yàlla fomm na ñaari combat yi ba askan wi sonn nañu sunu lamb yéen a na ñeenti mbër yooyu promoteurs yi fañ leen a jàpp otaas te loolu baaxut leneen lu baaxut ñaaw métti amee ca Grand Dakar Vox Populi moo ko xamal benn xale jigéen parantal bu am ñetti